toll ci démb la agence nationale de la statistique et de la démographie doon fësal nag résultat yi nga xam ne rek moo tukkee ci juróomeelu recensement général yi nga xam ne rek moom la ñuy amal ngir natt nag tolluwaayu askan wuy yewoo ci réew Sénégal waaye résultat yooyee nag ma ngay xam ne ni daal xel mën naa dal ndax dund gi fi mu toll ni nag jugee na ci juróom benn fukki at ak ñeent ci atum 23 dem ba ci juróom benn fukki at ak juróom-ñett ci atum 2023 Sud Quotidien faylu ko àddu ba tey moom it ci rapport bi nga xam ne rek daat nañ koy fësal ci tolluwaayu askanu Sénégal nga xam ne lim ba boo ko xayma toll na ci 18 yoo xam ne rek moom la ñu fi nemmeeku ci atum 2023 ndaw yi nag seenub lim toll na ci 35 bu dee étranger yi nag ñoom ñu ngi toll ci yu yeewoo fii ci réew Sénégal Les Échos yëglekaay ne juróomeelu recensement général nationale yi nga xam ne rek moom la ñu doon xayma tolluwaayu askanu Sénégal jamono ji nag ña ngay joxe limub ñi fi yeewoo ci xayma gi nag góor ñi moom ñoo ëpp fuuf jigéen ñi nag ba mu des ca région bu Diourbel waaye lu jëm ci wàllu njur gi moom daa wàññeeku bu baax a baax ndax gone yi daan juddu ci atum 2013 toll na ci juróom yu toftal benn ci téeméer boo jël waaye nag ci atum 2023 wàññeeku na ba toll ci ñeent yi toftal ñaar ci téeméer boo jël foofee ca diwaan bu Tambacounda nag ña fa yeewoo di ay célibataire seenub xayma toll na ci juróom fukk ñeent yu benn ci téeméer boo jël bu fekkente ni nag ci jigéen ñi la toll na ci fanweer ak juróom-ñaar yu toftal benn ci téeméer boo jël ca diwaan bu Kolda nag ménage yu bëree bëri yoo xam ne rek seenub xayma toll na ci ñaar fukk ak ñeent yu toftal juróom ci téeméer boo jël yéenekaay bi ne ay soxna ñoo ko jiite di ko doxal addu jëmale ci leneen ak Le Quotidien yëglekaay mi xëyee tey jii nag lu jëm ci tukki ne meeku bi nga xam ne rek doon na ko amal ca Touba ak ca Tiwaawan yéenekaay bi ne moom élimaanu jëwriñ bu Sénégal Ousmane Sonko mi ngi ci tànku Jomaay Fay démb la demoon ca dëkk bu sell boobee di Touba daal di seeti sëriñ Muntaxa Mbàkke ba mu fa jógee dem na ci Tiwaawoon ngir seeti sëriñ Babacar Sy Mansour yéenekaay bi ne la ko tax a jug moom Ousmane Sonko bokk na ci fësal projet yi nga xam ne rek moom la ñu am ngir réewu Sénégal L'As Quotidien ne ko ginnaaw visite bi nga xam ne rek amalee na ko Colobane ngir dalal xelu ambulant yi nag moom Ousmane Sonko dem na seeti nga xam ne rek ñoo di kilifa diine yi yéenekaay bi ne ndax du dafay waajal élection législative yi Libération ne ko premier ministre daal démb sëriñ Muntaxa Mbàkke ak sëriñ Babacar Sy Mansour dalal nañu ko moom Ousmane Sonko nag nga woon ca Touba ak ca Tiwaawoon enquête yëglekaay xëy moom it àddu jëmale ci leneen mu soxal nag jiixi jaaxa gi nga xam ne rek am na ci meilleur profil yi nga xam ne rek moom la ñu doon wër boobu ba léegi jëm ci wàllu nomination yi ay membres yi bokk ci Pastef jamono ji nag liy urgence ñoom bokk na ci li nga xam ne rek moom mooy nu ñu def ba gérer tension yi ñuy nemmeeku ci biir réew mi ak audit yi nga xam ne rek door nañu ko am ci ñoo xam ne rek ña ngay joxoñ baaraam nguur gi fi nekk ci anam bi nga xam ne rek noonee la Jomaay ak Sonko di tànnee seeni ñooñ yéenekaay bi ne ay collaborateur yu Macky Sall jamono ji nag nag ngay tekki seen i nombal tànk laataa ñu leen di dàq ci seen i barabu liggéeyukaay bés bi le jour àddu jëmale nag ci lu soxol règlement intérieur bu assemblée nationale yéene kaay bi di peeko jeu de député ndax fi mu toll nii nag yeesal yi nga xam ne bëgg nañu ko indi ci règlement intérieur bi nag groupe parlementaire bi nag dañoo bëgg a pousser Sonko ngir mu daal di amal ab njaaxum nag di amal déclaration politique générale am nag feneen fu mooy assemblée nationale aji mbergaan kanute di xamle ci biir yëglekaay bi ne procédure la boo xam ne daal kenn du ko parax paraxee te kenn du leen bousculer Abbas Fall ni bennoo daal bu fekkente ni ni nag dafay jël temps mënagul a wax lu leer premier ministre moom dina amal déclaration politique générale am ci ni mu ko xamlee woon Abba Mbaye bokk ci waa taxaw na ñëpp mën nañoo humilier assemblée nationale ba mu des Ousmane Sonko Abdou Mbow mi nga xam ne rek moo jiite groupe parlementaire bu bennoo bokk yaakaar di bind ab lettre boo xam ne rek da koo jagleel premier ministre jëm ci wàllu immigration les éco yëglekaay fellu ko ne mbëkk moomee nga xam ne rek ñu bëri ñàkk nañ seen bakkan ci géej gi moom Abdou Mbow ma ngay yëglekaay bi ana yan matukaay ngeen jël rek jëmale ko ci ndaw ñi nga xam ne rek dañoo mës a gëm ne rek bés bu ngeen jiite réew Sénégal da ngeen jëfee seen ay promesse réew mi quotidien na juróom-ñetti fukki ndaw ak juróom-ñeent gi nag ko moom jamono ji nag ay explication lay laaj kii di Ousmane Sonko jëm ci faatuk ndaw yi nga xam ne rek dañoo ñàkk seen bakkan ci géej gi ñeneen ñu ñàkk seen bakkan ci la yëglekaay daal xëyee niki tey ji nag mu di Fulbert Sambou ne seen njaboot jamono ji nag yoon la ñuy sàkk mu daal di def liggéeyam bokk na ci ñoom Alain Diedhiou moom nag ma ngay xam ne ne diir bi nga xam ne rek ñàkk nañ seen frère yooyu nag bënn nëgëni si nag amul benn xibaar boo xam ne rek bàyyeekoo na ci état bi jëm ci ñoom ma te ci jamono ji ñuy faatu nag ay way takk der lañu woon yu doon liggéeyal seeni réew Vincent Samb moom itam di xam ne ni nag leer na ko ne kookee di Didier Badji ak Fulbert Samb nag demuñu woon foofee ngir napp ji waaye dañ leen faat ndax du ci barab boobee la ñu daan dem bu ñu bëggaan di napp Amnesty International bu Sénégal jamono ji nag nag ma ngay gàlloo ngir daal di koy yóbbu ci kanamu yoon yéene kaay bi ne mbirum Didier Badji ak Fulbert Samb jamono ji nag coow laa ngi door a tàmbali ginnaaw bi nga xam ne rek njaboot yi génn nañu ci patt pataaral gi ñu nekkoon daal di fas yéene soññ kilifa yi yees yi ngir ñu daal di càmbar lu ni mel waaye nag sàkku nañu itam nag ñu daal di woo Ismaïla Madior Fall ngir lu ko ci li nga xam ne rek moo soxal faatuk ñaari way takk der yooyu tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale ak réew mi sport lu jëm ci wàllu euro 2024 yéene kaay bi ne Espagne démb daa éliminé France ba jàll ci